donc assalamu alaikum, Mangi Joseph euh nek coordinateur le du projet projet Fisong bi projet Fisong bi projet qui xamne dañ euh, ko dañ ko AFD financé donc projet bi dafa liggé ci formation ak euh, entrepreneuriat wax ci ñu euh, pour ñun ak euh, ak acteurs yëpp acteurs manam maanaam ñëpp ñoo xamné dañuy yëngu ci walum formation dañuy yëngu ci wàllum liggéey euh, muy muy atelier yi muy chef artisan yi euh, muy école de formation yi nga xamné ne ñoo ngi biir Kaffrine muy chef de service yi IEF pour waxtaan pour xool nan la mëna jappalé a jàppale xale taalibe yi ba ñu mën leen former da nga xamné ëlëk dinañu mëna euh mënal seen bop mënal seen wajur mais lepp lo xamné muy métier nañ ko mëna jang nga xamné suba ëllëg kenn du leen xeeb te kenn du leen wàññi ci biir société bi. Euh, projet moom tey lu mu jot a def bëri na tey soo xoolee ci wàllum euh, formation forme nañ ci ay xale yu bëri bëri ci métier yu bëri na donc tey su ma limee rek xam naa mënuma lim métier yëpp waaye tey su ma jàppale rek loolu soo jëlee lu mel ni informatique xale yu bari formé na lañ ci euh, soo jëlee lu mel ni pâtisserie ñaw yére ah,

ëllëg ñu mën a yar ay xar aussi mën a développer loo xamante ne suba euh, nañ ci mën a nañ ci mën a gis seen bopp donc loolu également nu ñu ko def ci xale yi ñu formé ñoom ñëpp muy muy informatique muy pâtisserie ku nekk ak formation bu nga mën jot a def ne leen mën a jàppale pour nga mën a démarrer activité boo xamante ne ëllëg dañ ci mën a gis sa bopp jàppale sa bopp jàppale say waajur euh, projet bi lu ñu ci xaar mu jeexee mooy mooy activité fee bi soo xoolee forum bi tey lu ñu ciy xaar mooy lépp loo xam ne jot na ci fee def te projet war a jeex mu bañ a nax saay donc euh, moo tax tey ñu dajale lépp lépp loo xam ne acteur la muy muy maître coranique yi euh, muy école de formation yi muy artisan yi nga xam ne liggéey nag ñoom pour que li ñuy jot a def ñoo ñu mën ko téye mais non seulement ñu mën ko téye mais aussi mën a mën a mën a permettre xale yi nga xamante ne formé guñu leen ñu mën leen dugal ci circuit de formation bi parce que am na projet bi jotu mais projet bëggul yem foofu rek bëgg suñu wax ci waxtaan bi tey suñ ci génnee képp koo xamante ne xale nga rek euh, acteurs yi fi nekk mën leen jàppale organiser wu ba mu leen jàppale ba suba également li projet bi jot a def ñu mën a def lu lu ko raw donc lool vraiment mooy suñu yéene moo tax tey ñu organiser waxtaan bi ci mën a waxtaan pour xool loolu yëpp man lañ ko mën a organiser. maa ngi tudd Ibrahima Loum te ni taalibe après yóbbu leen tàggal leen jàngal leen métier ba ëllëg buñ jógee ko ci daal di buñ mën a yor seen bopp mën a yor seen njaboot mën a taxaw seeni i wéy te ànd ak loolu yëpp du ñu fàtte seeni sëñ daara waxtu wu nekk. loolu moo am projet bi def na ci daara yi lu bëree bëree bëree boo demee tabaxal na leen ay duus tabaxal na leen ay classe itam defal na leen ñoo xam ne ñu amuñu woon ndox ñu dimbale leen ba ñu am ndox ñi nga xam ne nekkoon nañ bërëb boo xam ne bii mënuñu fexe ba courant àgg fa defal na leen ay panneau solaire yu amu am solo ànd ak loolu yëpp nag xale yi ñu tàggatoon jàngal leen métier ñëpp gën ku nekk ñu ngi koy gunge kon projet bi am na solo lool ci biir Kaffrine daal vingt et un daara yooyu yëpp boo ci dugg mun nga yëkkati sa loxo teg ko fa ne lii projet bi moo ko fa def loolu lu ñuy làmbatu lu ñuy teg loxo la. waaw waaw procès bi bu jeexee nañ tam xam naa bëgguñ sax mu gaaw a jeex wante fexe nañu ñoom procès boobu ba tàggatal ni lu ñu tuddee groupe initiative boo xam ne bii ñoom bu ñu demoon fa taxawoon foofa groupe initiative bi mën na tàmbali foofu jëm ci kanam waaw ak groupe plaidoyer bi am. Euh, bonjour à tout le monde donc je m'appelle euh, Joseph Ndong euh, je suis le coordinateur du projet FISON euh, à World Vision ici à kafrine Voilà, aujourd'hui nous sommes là euh, pour parler un peu de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes talibés dans la commune de Cafré. Euh, l'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir regrouper tous les spécialistes euh, du secteur, que ce soit les, les, professionnels qui sont dans le secteur de la formation, qui sont dans le secteur de l'emploi ou de, de l'entrepreneuriat, pour discuter sur la problématique des talibés l'insertion des jeunes talibés dans la commune de Café. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir regrouper tous ces acteurs et de pouvoir discuter euh, sur l'avenir des jeunes talibés qui sont au sein des Dara. Euh, parce qu'aujourd'hui, le projet a travaillé déjà, a fait beaucoup de résultats dans le cadre de la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais aujourd'hui, le projet est, à, pratiquement à sa fin de mise en œuvre. Et on aimerait vraiment laisser ces acquis à la population, à la communauté de Kafrine, pour que les acteurs qui sont dans le secteur, que ce soit les écoles de formation, que ce soit les, artisans, euh, que ce soit euh, tous les, chefs de service qui travaillent dans le secteur de la formation et de l'emploi, puissent soutenir encore ces jeunes, continuer à soutenir ces jeunes, même après la fin du projet. Donc euh, c'est un peu ça l'objectif fait de cette rencontre, comment voir comment aider en tout cas, mettre tout le monde ensemble pour qu'à la fin du projet, que les acquis de projet, qu'on puisse les continuer vraiment à les, soutenir grâce à la mobilisation communautaire et à l'engagement communautaire. Au niveau de Kafrine, nous avons touché plus de 150 talibés, euh, surtout grâce à l'insertion et à la formation de ces jeunes-là. Aujourd'hui, euh, dans plusieurs secteurs euh, d'activité, ces jeunes sont formés et sont en train aujourd'hui de mener des activités génératrices de revenus. La dernière activité que nous avons eu à mener, c'est la distribution, en tout cas, euh, de moutons aux jeunes éleveurs qui ont choisi en tout cas d'aller dans l'élevage pour les aider un peu à développer les activités d'élevage au sein, au sein de la communauté. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui sont dans d'autres activités, que ce soit des activités dans l'informatique, dans la couture, dans la pâtisserie, dans la menuiserie métallique, menuiserie bois. Donc on a vraiment des multitudes de métiers euh, dans lesquels ces jeunes sont en train d'évoluer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est que à la fin de ce projet, que ces jeunes qui sont déjà insérés dans les ateliers puissent continuer leur formation, mais aussi que d'autres jeunes qui ne sont pas encore formés par le projet puissent également euh, démarrer leur, formation grâce à la mobilisation des acteurs qui sont au niveau communautaire, que ce soit les acteurs euh, de l'État, mais aussi les artisans qui sont au niveau de Cafré. Les résultats attendus de, cette, activité aujourd'hui, euh, c'est d'abord sensibiliser les acteurs que ce soit les maires coraniques, euh, que ce soit les artisans, euh, pour que toutes ces personnes-là puissent s'engager euh, dans la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, je pense en tout cas personnellement que la formation professionnelle aujourd'hui, surtout pour les jeunes talibés, est, est une nécessité. Parce qu'on est dans, dans un siècle où il faut forcément que les gens travaillent, que les gens aient des métiers pour pouvoir continuer, évoluer, évoluer dans la vie active. Donc c'est vraiment l'objectif de ça. Comment faire pour mobiliser tous les acteurs, que ce soit les maîtres que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, euh, les acteurs communautaires, les artisans, euh, tous tout, ces, tout ce groupe-là puisse travailler ensemble pour que ces jeunes qui sont aujourd'hui au niveau de Catherine puissent bénéficier vraiment de ces formations et pouvoir demain jouer le tout, en tout cas des métiers qui peuvent les aider à, développer des choses au niveau de